mbokk yi arbitre bi woowaat ñaari xale yi arbitre bi sifflé na combat bi Youssou Ndour ndeysaan ak Mor Kang Kang ñu ngi lewtoo ba tey ñoom ñaar ñu ngi lewtu ndeysaan Youssou Ndour ak Mor Kang Kang ñu ngi lewtu Youssou Ndour sànni beneen coup ah Mor Kang Kang jàppante bi lay bëgg mais Youssou Ndour bu ko ko may Youssou Ndour xeex bee ko arrangé jàppante nañu war kankang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang mi ngi bëri combat bu metti combat bu metti lay bëri ndaysan jappante nañu Youssou sundur Mor Kang Kang nañu ñom ñaar Mor Kang lan la bëgg Youssou sundur mi ngi mi ngi rokos ay Youssou Ndour mi ngi mi ngi def ay hypercule Mor Kang Kang yu yu lay jël nii ci suuf est que loolu du ko wàññi tuuti. ndeysaan champion la boo xamante ni moom mooy moom Mor Kang Kang ko bàyyi xel tey li ko topp lépp ci stade bi ndeysaan Bawol Bawol yëpp a génn ndax bis bi. am dayo bi mu am dayo ndax xam nañ bis bi ni bëri ndeysaan Mor Kang Kang Mor Kang Kang Mor Kang Kang Youssou Ndour Mor Kang Kang Youssou Ndour laa ilaaha illallaah Youssou Ndour daan na ko Youssou Ndour daan na Mor Kang Kang Youssou Ndour daan na ko Youssou Ndour daan na Mor Kang Kang Youssou Ndour daan Mor Kang Kang